comme ni ko xamee rek euh, suñu secteur bi dafa am ay jafe-jafe depuis ay années mi ngi nekk si ay ay guuta maanaam dañuy nekk si ay coma RBS ak FNBS nag ñoom bëgguñu ku leen xalab leen leen dëkkuloo fu ñu dëkkul moo tax lépp luy nar a yàq paix social bi rek ñoom duñ si dugg moo taxoon kenn daaw leen dégg dañu tëdd di muñ may wax ni rek euh, yokk-yokk yi dafa dégg dajoo levure bi ñu jëndee levure bi gën a yomb laa wax mooy levure bu wow bi bi ñuy jëndee doon jëndee dix-huit mille léegi dem na ba ay trente mille si ay yenn marques yi am na sax ba trente cinq mille waxuma sax levure fraîche bi levure fraîche bi moo gën a cher boobu nga jëlee 9000 et quelques léegi yaa ngi si 18000 wala 19000 gasoil bi ngeen di xam li ñëpp xam nañ ni nëbbuñ gasoil yokk na fi janvier 9 janvier 2023 bii yokk na 100 francs avant essence bi yokkoon na 100 francs loolu ñëpp teew ngeen ko ñun oto la ñu de ak gasoil bi dañ koy liggéey si boulangerie yi pour pourtant nag yokk-yokk yooyu yëpp FNBS ak RBS dañ ni ah c'est comme population bi ñu ngi nekk si ay jafe-jafe yokk-yokk bëri na. nañu muñ rek di mu di muñ loolu lañ moo taxoon ñu doon muñ di waxtaan ci suuf ba sax yenn boulanger yi di tuumaal dem yaakaar ni dañu am nekk nguur bi moo tax ñu ñu ñu kii nii du loolu nous sommes de responsables askan bi la ñuy seet loolu tax defuñu dara mais nag nañu waxtaan li gën a tax aussi boulanger yi gën a fippuwaat mooy dañu comprendreul depuis un an yokk-yokk courant bi woyofal bi ak ak facture yi te pourtant de logiquement tey benn boulanger amoon droit sax ñu jox ko woyofal parce que TVA bi doo ko récupérer la TVA à payer ce qu'on appelle la TVA collectée et la TVA déductible bi collectée TVA déjà payée nga xam li ngay fay mais mënuñu ko am TVA bi te pourtant nous sommes nous sommes des boulangeries industrielles loolu yëpp état xamul loolu donc léegi nag facture yi cher na. loolu tax ñu ni kon nañ toog waxtaan ak askan bi xool nañu mën a jàppale ah beneen côté bi mooy dafa am loo xam ne ñu ko comprendre mooy dañuy dugg fan yi si boulangerie yi di contrôler pois mburu dama ne ñun duñu protéger kenn ku sàcc pois waaye dañeen bëgg ngeen xam ni mburu lay dund boo génnee léegi parce que mburu ndox la bu génnee léegi à fajar bi mu nekk deux cent grammes bu dawaatee bu midi poids bi day faible loolu moom ñëpp ko nañ ko xam mooy mburu c'est une matière vivante léegi nag temps njëkk ya mooy ba vingt 2022 bi dañ daan ñëw rek si boulangerie peese 20 jël 20 mburu peese jëlaat 20 mburu peese jëlaat 20 mburu peese muy 3 pesé ñu def moyen si par kii bu si benn yàqu rek ñu nga am problème waaye léegi xam lan la maanaam dañuy ñëw léegi jël vingt pains supposons bu si juróomi mburu manqué neuf grammes dañuy demaat lu ñuy defar beneen pesé bu dee nag dara manqué fa jeex na amul problème dañaan la conforme su amaatee beneen T2 benn mburu bu si manqué neuf grammes ñu ni yow sa mburu bi nga liggéey tey yëpp benn baaxu si loolu moom gaa ñu nag mille pains juróomi mburu manqué si te xam nañ boulanger yi dañuy liggéeyee nga ni lépp baaxul loolu jaaduwul lañ ko xolaat te dama bëgg mu leen ni anarchie bi gis ngeen ko maanaam mburu ñi ngi koy jaayee si boutique yi jaaduwul ñi ngi koy livre jaaduwul lépp lu ñu loolu si respecté respecté réglementation bi qu'est-ce qui diñ koy placé jaaduwul noo jaay mburu te amoo agrément maanaam daal lépp si biir réglementation bi président Macky Sall si ñëwoon dara doxu fi leneen li mooy dañu conseillé dañuy léegi daal ñu am borom daraja yi léegi wala ñu am relation yi nu leen neex def bu ñu neexee ubbi four fu mu leen neexee bu ñu amee moins de trois cent mètres bu ñu demee commission gouvernance ñu leen maintenant la dérogation jeex na loolu nag dañ ni <laughs> na fay dañ léegi nag kon bu loolu amee sagam amuñu ko loolu nag ñun dañoo bëggoon nag léegi loolu sagam loolu mënul nekk nag léegi ñu ni kon dañuy demander la vérité des ñoo parce que ñooñu ñooñu ko digoon ñooñu waxoon ne wàññi leen njëg li ñu wàññi danañu la defal réglementation bi loolu amul kon léegi li ñuy wax vérité des prix loolu la ñu demandé mu leer ah li ñuy xeex nag consommateurs yi si ngeen bokk moo tax ñu bëgg leen jël en témoin dañu bëgg ngeen xam ne mburu bu baax prix bu baax la qualité prix la mënuñu nag léegi xool ni nag léegi moo tax ñu ni kon dañuy demander président de la république ni ko boulanger yi sonn nañu ñu ngi koy ñaan mu dimbali ñu ñu ngi koy ñaan mu atténuer suñu souffrance bi ñuy dund fi mu toll nii ñu ngi koy xamal ni que dañuy yore ay njaboot dañuy yore ay emploi yu ñu war a préserver leen dong la ñuy ñaan décret ba mu signé woon moo fexe ba ministère yi ko concerné intérieur police gendarmerie commerce dañ ko jàppale appliquer réglementation bi boobaa xëy na dina wàcc suñu mbir may wëgal askan bi ñun nag gën saa néew fukki dërëm lañuy laaj si njëgu mburu mi parce que mooy li jaadu bu ñu xoolee yokk-yokk yi mooy li jaadu waxuñu dañuy ñëw yokk mburu mi léegi fukki dërëm de waxuñu loolu de dañ ni dañuy demander conseils régionaux yi ñu convoqué leen ñu statuer def structure mais ñun bu ñu demee si réunion yooyu fukki dërëm la ñuy laaj te am nañu argument yi loolu la ñuy wax mu leer beneen bi mooy gouvernement bi moo ni mburu social la na xool yan pexe la mën a def subvention wala alors ak lu mu mën def daal bu courant bu courant bi wàññeeku beneen bi mooy na xool lu ñuy fexee ba wàññi droit douane yi pour levée de amiant bi bi ñuy importé parce que kenn deful ko Sénégal na ko wàññi pour que askan boulanger yi mën a jënd levure ak amiant bu yomb dafa yokk de vingt mille ba trente mille moom mënul ko ne beneen bi mooy ñu ngi koy ñaan rek na fexe ba réglementation ba mu woote woon ba mu signé woon mu respecté ko léegi nag bu ko xam ba pare ñun dañoo leen parce que ne def benn lël euh, ak RBS ak boulangers yeneen si région yi pour xool ban yoon la ñuy jaar ma wax ni sànq ni temps euh, temps wu yi ñun du suñu temps maa ngi dégg ay le contexte yooyu loolu ñun xooluñu ko fi mu toll nii suñu suñu bi la ñuy xool ah parce que du ma nangu may tëj ay four ah tëj naa benn four du ma ko nanguwaat boulanger yaa ngi tëj duñ ko nanguwaat